toogul fii nga toog. Pape Ngagne tontu naa la ba pare. mais nga ni ma même bu jaree ma raag ak ñoom dama koy raag ak ñoom. Pape Ngagne tontu naa la ba pare léegi nag ñu ñuy seetaan ñooy àtte ndax yow li ngay wax ak sa relance yi moo ëpp solo li may wax. ok Guy euh, lu jëm ci fausse alerte yi nga xam ni ci nga ci nga demee kaso ndax mën nga ci c'est vrai am na ñu wax ni du sa du sa écriture mais ak lu mën a xew génnu leen yéen waa waa FRAPP France dégage ndax mën nga si dellu si waat ci information boobu ngeen joxe woon. Hmm. lenn laa mun wax pour mën a tontu sa laaj de manière exhaustive dañ ma jàpp mardi 16 juillet ma ñëw ñu ne ma ñaari post ngi sa poste la wala du sa poste Facebook sa poste la wala du sa poste ma xool muy post boo xam ne dafa ne ah métit la naxar la suñu ay doomu Sénégal y compris ak ñoom seen mhm. di dem faju bitim réew mhm. di dem deewi ci hôpitalu bitim réew mhm. monte de juróom fukki at ak am am bi nekk ci Sénégal mënoon nañ doter le Sénégal ak askanu Sénégal de structure de santé yoo xam ne du ñu sax soxla dem Maroc mbaa États-Unis mbaa France pour faju ñu ne ma poste bi est-ce que sa post la ma ne leen lu ngeen may toppee ñu ne amaguñu lu ñu lay toppee benn ma ne leen kon duma tontu benn question parce que foog ngeen wax ma lan mooy infraction lan mooy charge parce que mënoo téye nit ba pare di ut li ñu koy toppee muy benn ñu ñëwaat mardi ñu posé ma ay laaj yu bëri mat na téeméer laaj bu ñu laaj ma ne leen lan ngeen may toppee ñu ne xamuñu ma ne leen du ma tontu ba téeméeri laaj. boobaan sa avocat. mu ngi mardi talaata àllarba alxames ba. ak juma ci ngoon lañ ma soog a wax juge bi ne ma fausse alerte au terrorisme li ma bëgg a wane foofu moo di ne Pape Ngagne ñun ñëpp dañoo nekk suñu suñu liberté suñu sañ-sañ suñu bakkan dafa nekk ci xottu gerte mhm. ndaxte ku nekk ci Sénégal bu ñu bàyyee lii jàll mun nañ la ñëw convoqué di wër lu lay daanee di wër lu lay toppee te loolu kenn waru ko nangu ñu ñëw nag ci fausse alerte au terrorisme mhm. binduma signéwuma conférence de presse bi seeni confrères ñu ngi fi. partage nga image maa ngi ñëw non frappe frappe France dégage moom mooy partagé conférence de presse bi ñi ko animé bokkuma si waaye maa ngi bokk frappe France dégage maa ngi koy assumé. Mhm. ñu ne ma maa wax lii man ne leen ah bokk naa frappe France dégage mais man binduma signé wu ma donc du mënoo ko attribuer Guy Marius Sagna donc booy topp bu fekkee mën na nekk ba ma ngeen topp. ñun ñëpp waa FRAPP France dégage mais mënoo topp kenn nit loolu de moo ci am donc fausse alerte au terrorisme boobu du sama wax man man boo duggee ci moteur de recherche yi nga gis samay contribution personnelle yoo xam ne damay bind titre bi bind par Guy Marius Sagna mhm. mais loolu wax dëgg yàlla boo signé FRAPP France dégage comité de coordination nationale. mais assume bokk nga assumer nga ko assumer nga ko en tant que membre FRAPP France dégage. non c'est-à-dire les propos nga ko. c'est-à-dire mënu moo ko assumer xam nga lu tax kuréel moo ko wax man maa ngi bokk ci kuréel bi bu fekkee état dafa am jafe-jafe ci propos yi Pape Ngagne ñu la topp ci li nga xam ne yow sa waa daayira ñoo ko wax déedéet dañuy convoqué waa daayira bi yëpp bu dee loolu mën na nekk mais mënoo ñëw daayira bi wax lii. wala ASC bi wax li nga seppi ci benn nit boo xam ne nekkul njiit li nekkul coordonnateur signé wu ko biñ koy wax teewul ñi ko wax ñu ngi nii ràññee nañ leen nga bëgg ci seppi pap pap mais donc donc propos yow wuloo ko. lan mooy revendiquer loolu laa bëgg a comprendre. Ah, mais revendiquer mooy nga ni li ñu wax frappe dégage man jàpp naa ni dëgg la ànd naa ci. xam nga loolu laa bëgg a wax mu leer tey. d'accord léegi xam nga la may wax ci. waaw mais foog état bi ak justice bi wax lu leer nañ sëñ Goor man li may wax a yow fii laa koy wax ak yow déedéet bi ak état bi man ak yow ñooy wax ah, ah, ah, non man ak ñooy wax <laughs> Pape Ngagne man liñ ma liñ ma toppee mooy fausse alerte fausse alerte bu dëgg man personnellement daf ma fausse alerte donc justice tamit dafa am yoon nu muy doxee munoo ma ne waaw léegi yow jàpp naa la ci daayira bi nga bokk léegi sax d'ailleurs li daayira bi wax est-ce que d'accord nga si ou pas <laughs> du noonu la ñuy régler problème Pape Ngagne non non loolu léegi problème justice la lii man ak yow problème communication la waaw def ngeen benn poste boo xam ne c'est pour communiquer ci benn affaire loolu laa bëgg a wax ak yow léegi problème justice la ok maa ngi soog a comprendre li ma lay tontu lu gàtt la moo di ne man liberté provisoire laa am liberté provisoire ma xañ benn affaire mooy l'instruction est en cours. même loo gëm dootoo ko wax. non même boo ko gëmee. maa ngi ñëw maa ngi ñëw. même boo ko gëmee sax. maa ngi ñëw da ngay ragal dellu kaso. maa ngi ñëw. ok maa ngi ñëw. Mhm. l'instruction est en cours lépp li nga xam ne laal na instruction bi mënuma ci wax loolu yoon <laughs> yow mi doon wax waxu yoon yoon moo ko wax par respect à mes par respect à l'instruction en cours lépp li nga xam ne concerne na instruction bi du fii laa koy waxee. bu ma koy waxaat xanaa kay ñu jël si waat ma yóbbuwaat ma ci kanamu euh, juge bi. gi est xam nga da nga daaw wax ji. bu la neexee ok d'accord kon nga euh, foogoon naa nag di nga ko di nga ko assumer mais comme assumer wuloo ko ñu dem ci leneen loo xam ne jàpp naa di ko assumé nga ni 59 ginnaaw bi ay kilifa.